asalaamaaleykum mbokku internetu 24 actu yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk lay doon saa suñu janoog yéen suñuy xalif général yi nga xamante nii ñu ngi ci biir réew mi ak itam mbas mi lëmbe mim réew di covid 19 noonu tamit la ñaanee suñu borom daal ñu ko fiy dàqal naam ne kaa ngi wàññeeku bu baax baax jamono jii waaye nag du tee ba tey ñu ñaax askan bi ñu gën di maytandikook li nga xamante ne nii moo di geste barrière yi nga xamante ni que docteur digle na ko ñu ciy gën di bàyyi xel ndax xeex bi gën a gaaw génn ci mim réew ñu nekk nag ci weer woo xamante nii ah da di weeru mbégte mu di safar da bu ñu waxee safar xel yëpp day dem ci ki nga xamante nii moo di cheikhul xadim képp la rek na nga ko màggale bis bi nga xamante ni ci la am ndam lu rëy lii mu di 18 safar kon nag képp koo xamante ni rek ab murid nga yaa ngi bég jamono ji ndaxte ay fan yu néew nag di 18 safa tey nag ñu ngi fii ci résidence Cheikhoul Khadim ndaxte ku wax résidence bi nga gis ne boobee ba léegi nag ñu ngi am ay gan di accueillir ay gan waaye tamit dafa am benn kuréel boo xamante dañoo nekk ci biir résidence bi la ñu tuddee seen bopp daayiratu Touba li Abdil Mouridi noonu la daayira bi tudd nga xamante ni nag moom lañ toogal nii mu di euh, Serigne Jibril Fall moom nag lañ daal fas yéene àndal waxtaan bi la mu wax ñu li nga xamante ni moo di liggéey bu rafet bi ñuy amal fii ci résidence Cheikhoul Khadim ko rek mu daal di ko mbokk internet yi koy bu baax a waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay delloo nuyu ak ziar di wax aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wasala abada ala la si bihi lana wala abada jërëjëf sëriñ Tuuba mbokk yi ñoo ngi leen di delloo nuyu di leen ziare bu baax ci jotaay bi nga xam ni ànd ngeen ko ak ñun ñëw fii ci résidence Xaadimu Rasuul waaye ku nekk xam na ne bu ñu waxee safar kenn ku nekk sa xel day dem ci sëriñ Tuuba waaye bu ñu waxee safar kenn ku nekk day day day sa xel day dem ci màggalu Touba euh, euh, kuréel gi nag mi ngi tudd daal daaira Touba li abdil muridin salih muy kuréel gi nga xam ne moo lëkkale mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba dafa seexal seen maam euh, Serigne Saliou Mbacké moo ko tudde woon ci atum 2006. ci jamono yi Cheikh Mouhamad Amin Bara yàlla na ko sunu borom fay te yokk ay leeram ca barsàq moo ñu boole woon ak Serigne Bachirou Abdou Khadir ñuy ñëw fii ci kër gi di fi liggéey. composé benn kuréel goo xam ne mu tudd diiwaan ñu tudde ko diiwaan diiwaan mooy loo xam ne mbooloo mu bari mu dajaloo waaye dëgg sur dëgg surtout mooy daayiratu Baali Abdin moo lëkkale mboolem mag ñi sëti mag ñi euh, ñuy liggéey fii nag ci benn fanu safar ci la ñuy tàmbali saay bu weeru feeñee rek benn fanu safar la ñuy tàmbali ba fukki fan ak juróom saay bu ñuy wàcc bu nekk ñetti fan mooy def ci màggal yi euh, loolu itam ñu nos ko ci nosin woo xam ne euh, nosin wu am solo la ndax ku nekk xam na ne kër gi li muy soxla woo day bari jumtuwaay yi ñu soxla day bari waaye non seulement itam gan ñi fiy ñëw eh, gan gu nekk dafa am lu muy laaj te kenn ku nekk war naa am eh, nu ñu ko nosee ba tax na ku nekk xam na ne Sëriñ Tuubaa li mu gënoon a bëgg mooy al alquran ba lépp loo ko masaa jox lu dul alquran du ko nangu ci ay loxoom danay tegal foofu lay wax loolu moo tax ñu njëkk a nos ci commission scientifique bi xam ne eh, bis bu set war nañoo wàcce juróomi kaamin kon am nañ kuréel goo xam ne mooy yor daari kaamil fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi benn fanu safar ba fukki fan ak juróom nga xam ne bu safar bi jeex day fekk dañu am juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom loolu sëriñ Basiru Abdou Xaadir daf ñëw ñu cee waxoon lu am solo wax ñu nañu bu ñu soxla woon junni kaamil mën nañ ko am ci Touba waaye liñ ci taamu mooy ñi nga xam ne ñuy dereti ngërëm ñi nga xam ne sëriñ Touba daa seexal seen maam ñooñu lañ bëgg ñu jàng kaamil yooyu nga xam ne noonu lañ ko noosee ña fay jàng ñëpp dereti ngërëm lañ sëriñ Touba moo seexal seen i noonu lañ ko defee waaye ku nekk xam ne nag set dafa bokk nag ci jaamu yàlla waaye ku xam ne ne set nag dafa bokk ci lépp loo xam ne ab jullit war na ko jëfandikoo rawatina ci jamono bi ñu toll kon am nañ kuréel goo xam ne moo tudd hygiène nga xam ne ñoo yor ba fii ñu nekk rek di ko def ñoo yor lépp loo xam ne luy set ci kër gi la ut nañ ay masque di ko sol ñaareel ba ci itam ñoom ci jamono ñi ko ñi ci wàllu wàllu hygiène bi jamono ju nekk am nañ eau bu doy madaar yu doy ak euh, jumtuwaay yi nga xam ne yëpp danañ ko mën a jëfandikoo ci chambre yi ak salle de ba ci salle à yi ñu nekk ñoom ñoo koy nettoyé bu ñu xëyee dañ ko nettoyé bu bëccëgee dañ ko nettoyé gan guñ dalal itam bu bu danañ ko nettoyé waaye bu génnee itam danañ ko nettoyé pompaat ko ba nga xamante ne si ne gëm nañu ne rek set gi ci war dëgg-dëgg dana ci am kon loolu itam am na ci noonu lañu amee itam accueillir ku nekk xam ne nag gan bu dikkee fi barab faw am ku ko dalal am nañ kuréel goo xam ne moo tudd accueillir nga xam ne si ne gan gu agsi rek bu jógee ci Sëriñ Bas euh, dañ koy daal di dalal waaye buñ ko dalalee ku nekk nag xam ne ne gan foo ko teg ne war na am sécurité moo tax wut nañ kuréel goo xam ne itam moo yor wàllu sécurité bi ci wàllu porte yi ci wàllu chambre yi ba fépp foo xam ne foofu la activité bi nekk euh, kuréel googu itam am na am geneen kuréel goo xam ne itam mu ñoo yor wàllu restauration bi restauration nag euh, am na sous commission ñaari sous commission mooy salle à manger ak collation euh, restauration bi moo yor lépp loo xam ne wàllu xewal yi fii nag duñ fi toggee waaye lépp dañ koy defar ba mu jàkk rek ñu indi ko ñu séddale ko am nañ commission boo xam ne itam bu am compétence wax dëgg yàlla am am am am cet bu baax a baax ci seen bopp euh, ba nga xam ne ñam yi boo ko gisee dañ ko xemem non seulement mën nga am aw ñam waaye boo ko joxee duñ ko xemem ngir ña koy joxe mais am nañ ay qualité doomu aadama yoo xam ne képp kuñ joxu ñam sa xel dana ci dal loolu itam dëppoon nañ ko ci wàllu set gi a baax euh, wàllu restauration bi itam noonu lay doxee ci fànn yaatu yaatu zal amase bi itam euh, xam nga am na gan ñoo xam ne dañ leen mën a dalal ci biir Sampori mais am na délégation yoo xam ne bu ñu ñëwee xalaa kule alin ñu indi leen ci salle amase bi salle amase bi lu mu gàtt gàtt mën naa jël 1000 personnes kon loolu moo tax tey étage la euh, ci kaw ak ci suuf lépp day jël foofu itam am nañ beneen kuréel boo xam ne su laajee euh, zaal euh, taabal yu mag yi ñu ñu décorer ko ñooñu ñoo ñooñu wàllu décoration lañ jàng ba am seen i diplôme kon jàpp naa ne kër sëriñ bi ñi fi jël ñëpp ay boromi qualité lañ ñooñu itam ñoo yor loolu ci collation bi itam am na ñoo xam ne ñoo ko yor parce que gan gi ñëw ci suba gi su soxlaa café dañ ko koy indil bu soxlaa ataay dañ koy indil bu soxlaa mburu dañ koy indil bu fekkee bu am suukar ak bu amul suukar lépp lañ programmé su añee ba pare itam ndox lépp loo xam ne mooy mashrubaat yoo xamante ne luy bernde loolu yëpp disponible na am na gan ñoo am na ñu wax équipe boo xam ne ñoo yor loolu saa bu añi demee rek ñoom andi nañ andi nañ xewal yi kon donc noonu lañ ko nosi ci kër sëriñ bi euh, ci euh, bànqaas yu yaatoo yaatoo yaato euh, waaw xam naa bi ko door rek léegi nag war naa mat 7 ans wala mu ëpp ko waaye kuréel gi moom mu ngi daayira bi mi ngi sosu 2006 2006 la sosu ci jamono sëriñ Salim Mbacké Euh, keroog bi nga xamante ne ci weeru koor dem nañ ci sëriñ Saliou di ko ko wax euh, bindoon lu mat fukki nit bi ñu eggee dañoo fekk sëriñ bi sonn waaye biñ ko ko yëgalee sëriñ bi dafa jóg duju daal na ñooñu da yàkkamti naa leen a gis lësi bi ñu ko njëkk jox sëriñ bi dafa jël teg ko ci jéem teg ko ci dënnam daal ne maa ngi tawasul maa ngi ñaan ci darajey mag ñi yàlla ngeen ci dajee ngërëmal sëriñ Tuuba te da ko ci dajale dangeen ci yokk dangeen ngeen ba yëkku euh, daal cee wax wax yu yéeme wax na itam ne ba leeral ne bu ñuy wax sëriñ Tuuba rek la woon dañoo bëgg a niiwal doole Serigne Touba ngir Serigne Touba kenn mënu ko de niiwal doole saa waaye nag yoon wi fu mu yegg tey mag ña mag ña àndoon Serigne Touba mu xamal nañu nag bi nga xamante ne Serigne Touba mi ngi nekk résidence surveillée Serigne Touba dafa liggéeyoon ay Serigne Touba Serigne Touba mooy mag ñi àndoon Serigne Touba ba mu seexal kenn ku nekk di tasaara yoon fu mu yegg mu xamal nañu kon fu kon fu yoonu yegg rek mag ñi Serigne Touba defar ci la bokk te loolu effectivement fépp foo dem fu nekk rek mag ñaa fa yóbbu yëfi waaye mag ñi fañ ko jële mooy ci Serigne Touba kon xam na ne ñi dar Serigne Touba démb ak tey ñooñu ay nit lañu woon yoo xam ne yu fonkoon seen diine waaye yu Sëriñ Tuubaa defar ba ñu weesoo yàq kon mel ne kuréel jii daal daayira Touba Lane euh, dañ ci lancé wala képp koo xam ne Sëriñ Tuubaa seexal sa maam da nga xam ne ubbil nañu suñu bunt am nga possibilité bokk ci waaw fii ci biir kër gi am nañ ay badge yoo xam ne euh, dañ ko def ci bépp commission bépp commission rek def nañ ci sa turu bu fekkee jëwriñ ji def nañ ci fotom bu fekkee restauration bas bat restauration am na salle salle à manger am na accueillir am na daaray kaamil am na sécurité am na hygiène am na noonu lañ ko def ay badge bu njëkk doon nañu ko bëgg a def ay déguisement waaye dañu bañ mu xumba mbëpp moo tax ñu wujj ko def ay badge yoo xam ne eh, dina mën a fonctionner ci biir kër gi te képp ko xam ne kuy sécurité itam danañ la signaler ne la badge yi ñoom accès pour jàll ci ko fànn bi bu fekkee fu ñu dalal gan itam koo xam ne nekkoo ci restauration wala collation amoo accès pour jàll foofu nga xam ne gi dina nekk ci sécurité ba keroog muy dara du ko déranger xam naa noonu itam na ci doxinu kër gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si sant nañ bu baax a baax di gërëm mbokki internet yëpp euh, di leen sant di leen gërëm di wax ne seen taxawaay ci màggal gi ci liggéeyal Serigne Touba euh, yëg nañ ko gis nañ ko itam ñoo ngi leen ci ñaanal ngeen daje cee ngërëmal Serigne Touba ndax Serigne tubaa màggal gi ku nekk xam na ne Serigne Touba moo ci joxe woon ndigal nee na na ngeen koy def moo waral itam def gi ak circonstance bi munta ñàkk ndax ñun murit ndigalu Serigne Touba rek la ñuy xaar saay bu Serigne Touba laajoon bakkan itam dañ koy joxe kon nag loolee Sëriñ Tuubaa doon ñaan naan zurriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jiinil muntaqa tajtaalu loolee dikk na su yow suñu borom maa ngi lay ñaan sët yu tee yoo xam ne yuy dundal sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yoo xam ne jamono ju nekk dañuy taxawal diine kon mu mel ne Sëriñ Tuubaa ñi mu fi bàyyi ci seex yi sant Mbàkke ci eh, ñi xam ne ay la ñu sant Mbàkke ak seex yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa la jamono ju nekk ñi ngi défendre diine non seulement waxuma la eh, yoonu murit waaye jamono ju ñi ngi défendre diine jamono ju nekk daal diine moom du sëgg mukk ci lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa ko yilif ndax diine rek moo na ñor te it loolu rek moo tax euh, sunu borom wàcc ñu ndax sunu borom wax na ne euh, képp koo xam ne wàcce naa la rek wàcce ma lu nga nga jàmm kon muy jinne ak euh, doomu adama yi ñëpp la tax suñu borom wàccale mooy jàmm kon jàmm yàlla nag nañu xam ne li suñu borom digle ñun suñu bakkan rek lañ ci teg buñ ci faatoo itam dañoo dee ci jihaad te itam loolu mi ngi ci alxuraan mi ngi ci hadis mi ngi ci li Sëriñ Tuubaa bind kon yéen i soxna yi ak ñëpp yéen ñi ànd ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan seen site bi fépp fu site di egg ci yokkute yàlla na fa yegg yéen ñi nga xam ne yéen a ko yor itam ngeen dem ba am seen site bopp yor seen éléments yi bopp ñuy liggéey di ñëw di leen rendre compte kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax na liggéey bi lépp luñ ci am yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ci barkeb Serigne Touba ñu fekkee ko ay déwén i déwén wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom sëñ Jibril dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëme ko ci diwaan boobee nga xamante ne am na ci biir kër gi nga nag fànn yu bëree bëri ñu ngi ciy liggéey ndaxte wax na ko sànq ci ay waxam sécurité dafa am solo lool hygiène tamit dafa am solo restauration tamit dafa am solo ndax dañuy gis rek bool yi di dugg ci kër sëñ bi nit ñi di accueillir gan ñi te doo xam ñan ñoo yore wàllu woowu ndekete ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom la sëriñ Touba seexaloon seeni maam ñoom sët yooyu lee ñoo wëyal nag ci amal liggéey bu am solo bi fii ci résidence Seexul Xadim nii ngeen koy topp ak yéen nag ami internet yu 24 actu ni leen ko waxee woon waajtaayu màggal lañ leen wax kon nag lépp loo xamante ni day xew fii ci Touba bala ñuy màggal ak après màggal tamit lépp di ngeen ko am ci seen site bi di 24 actu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf